ay Aïcha di nuyu sunu mbokk yi ñuy teewlu saa su nuyu itam ñi nga xam ne ñoom lañu fa yéene bokkal plateau tey bi. ngi rafetlu di rafetlu sama teewaay man. <laughs> dalal ak jàmm alors euh, revue bi dañ koy tàmbalee ak presse Afrique ñoom nag ñu ngi ñuy jox ay nouvelles ci ab convocation bu nga xamante ni jox nañ ko benn acteur euh, ci média bi. muy ab journaliste buy wuyoo ci turu Seng Saliou Guèye moom euh, la ñu woo niki tey mu fas yéene dem wuyu ji moom nag direk mooy directeur de publication bu quotidien yor Yoor nekk itam. chroniqueur fële ca euh, Sen euh, TV moom ni tey nag lañ ko convoqué fële ca commissariat euh, central bu Dakar presque Afrique nag moom mooy xamle lu ni mel ginnaaw ba mu bu jokkoo moom ba kooku confirmé boobu lépp convocation ni tey ji nag bu fukki waxtu jotee ca la ko enquêteurs yi fas yéene Euh, déglu si li nga xam ne euh, moom moo tax ñu woo ko jamono ji nag ba léegi kenn xamul exactement mhm. lan moo waral euh, ñu convoqué ko moom chroniqueur boobu li waa immédiat ñoom nag ñu ngi àddu ci euh, coowal Amy Ndiaye Gniby waaw muy procès en appel boo xam ne dañ ko renvoyé woon bis démb ñu doon jano ak àttekat bi waaye mu mel ni euh, verdict rousseau ca ñaari député pur yooyee di Massamba euh, Samb ak Mamadou Niang Massata Massata mhm. Samb ak Mamadou Niang merci ñoom nag seen procès dina xaarandi ndax dañu ko dañuy xaar verdict acte bi dañu ko euh, dàqandi ba 19 juin euh, bi nu euh, dëgmal donte sax nag seeni avocat jëkkoon nañu sàkku ngir ñu may leen bàyyi nëgënduku waaye mu mel ni àttekat ba dafa dàq boobule càkkutéef ndax nag dafa jàpp ne warul mën a am waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di layal ñoom jàpp nañu ne waroon na leen ko mën a may ndax ñoom joxe nañu bépp garantie bu war a man buy wane rek ne ñoom ñoo ngi fii mën nañu nekk à la disposition de la justice ngir ñu mën leen ko wane rax ci dolli nag ñu ngi ñuy wax ne am na ay tànku jàmm yoo xam ne ñu ngi koy dox ngir li nga xam ne moom mooy problème bi ñu am ci solution à l'amiable looloo waral avocat yi jàpp ne waroon nañ ko mën a may euh, liberté euh, provisoire boobu su ko defee nag moom euh, ñoom ñaar ñooñu dinañu desandi prison xaarandi le 19 juin bi nga xam ne foofu ca la ñu fas yéene jot seen verdict waaye Euh, du ñu toog ba le 19 boobu ndax le 19 juin boobu dina fekk ñu purger mhm. seen six mois yi nga xam ne moom lañ leen tegoon muy euh, juróom benn weer yu ñuy tëdd kaso 19 euh, juin boobu dina fekk ñu dépassé ko donc bala jour verdict bi dina fekk ñoom ñu génn ba ñibbi seeni kër Aïcha waa Seneweb ñoom nag ñu ngi intéressé wu ci kii di Aïssatou Sané nekk militante du ay Aïssatou nag mu ngi ñu expliquer ni nga xamante ni noonu lay dundee ak bras effectivement moom nag sax jamono ji mujj nañ ko euh, delloowaat fële nga xam ne moom mooy euh, euh, camp pénal ndax nag bracelet électrique boobee nga xam ne. Euh, jox nañ ko ko daf ko euh, julal ay jafe-jafe yu bëri moom da jàngalekat la nekk fii ci euh, Dakar waaye dafa nekk responsable des femmes de Pastef foofe ca Tangori Casamance la nekk loolu ca département bu Bignona nekk itam conseillère départementale bu boobu lépp gox moom nag ba ñu ko arrêté ju fukk ak juróomi fan ci weeru mars fii ci cité Kër Góor gi ginnaaw ba mu amee ba mu demee foofu ci wetu kër usmaan Sonko ñu jàpp ne ñu doon ko toppee euh, plutôt li ñu duppee euh, troupement noonu autorisé ak euh, trouble à l'ordre public moo tax ñu téewoon ko naka noonu ñu bàyyi joxoon mayoon ko bàyyi nëgëndiku ba noppi toftal ci li nga xam ne moom mooy bracelet électronique bi waaye moom nekkinam ak bracelet électronique boobu dafa métti woon ci moom lool ndax jàngalekat la bu waree dem joxe ay cours mhm. day jafe ci moom buy génn ñuy nit ñi di xool tànk yi ak yooyu nee na am na bis boo xam ne dafa doon euh, génn di dem euh, yaraax bisub euh, di seeti tonton benn tonton foofu bisub korité ci yoon bi la ko kenn si ñu koy surveiller woo ne ko yaa ngi dépassé Euh, limite bi nga xam ne foofu nga war a yem am na istam oncle am bu décédé euh, ca dëkk ba munul fexe ba dem fa donc yooyu yëpp nekk ay jafe-jafe yoo xam ne euh, mu ngi ko doon dund rawatina gis regardu nit yi nga xam ne daf ko doon déranger loolu yëpp nag mu jot ko confier laata ñu ko yóbbu ndax li tax ñu jëlee ko dellowaat ko prison mooy loolee nga xam ne jàpp nañu ne daf ko salfaañi maay moonaam li nga xam ne moom lañ ko teg ci ay restriction mu juw ci euh, tënku ba looloo waral jëlaat nañ ko dellowaat ko si euh, nga xam ne moom mooy prison bu euh, bu bu femme yi nekk fii Liberté 6 dañ koy ndax kebbee Kajoor ak épidémie épidémie bu méttee métti bu nga xamante ni am na fële ca Niger. waaw foofu nag euh, épidémie boobu boo jàppal ne janvier ak léegi euh, faat na lu toll ci téeméer ak euh, ñaar ci ay doomu aadama rawatina nag ay tout tànk ñoom ñoo ci ëpp ndax ci cent deux nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan mille huit cent dix cas. ñoom la ñu enregistré woon euh, janvier boobu euh, ba léegi loole nag mu nekk ca nord de euh, Zender nekk ca peggu frontière Niger ak Nigeria loole nag la ñu xamle mu jotalaan nag lu toll ci mille quatre cent soixante cas yoo xam ne quatre-vingts 84 yi dañoo ñàkk seen bakkan ci euh, benn gox rek euh, télévision euh, nigériane bi di ko xamle ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa organisation mondiale de la santé lañu xamle mooy gox boobu di Zinder ñoom fas nañ fa yéene amal ab vaccination boo xam ne dinañ ko tàmbale la ko dalee 17 jàpp 25 mai. Mhm. te ñu bëgg nag vacciner lu toll ci 380 000 personnes. ndax gox boobu yi nga xam ne fa la ñu bëgg a vacciner jàpp nañu ne moom moo gën a sonn ci lii nga xam ne moom mooy euh, méningite bi nga xam ne mu ngay euh, wër euh, réew ma di gën a law nag fu ne loolee moom mooy loo xam ne jamono ji moom moo ëlëm ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu wér-gu-yaram foofe ca Niger Aïcha lii moom mooy li ñuy gën a maanaam li ñu mën a tënk ci xibaar yi nekk ci toile bi jërëjëf Kajoor ñu jaajëfal la xibaar yi am na solo dina am ci benn ponk boo xamante ni dinañ ci ñëwaat euh, mais ñu dalal Grégoire sa nœud de papillon rafet na rek nga bëgg a yee askan wi daal am naa ñoo ma soxla <laughs> te yaa ciy pré <laughs> dalal Aïcha nuyu sénégalais yi <laughs> dalal ak jàmm nuyu Kajoor di rafetlu teewaayam. Mm. di ko ziar baax ci suba si. dalal ak jàmm Grégoire c'est toujours un plaisir ngay retrouver équipe bi fii ci studio Barack Obama Kajoor. Mm-hmm. Euh, fan yi dañu nemmeeku euh, convocation yu bari. par rapport ak journaliste yi. Mm-hmm. Serigne Saliou ba léegi c'est vrai xamaguñu les raison euh, de sa convocation. Mm-hmm. mais de manière générale dafa mel ni de plus en plus convocation yi dafay gën di bari ci côté journaliste yi. dafay gën di bari parce que am na ay journalistes. yu engagé mu am yoo xam ne engagé wuñu ñi engagé nag ñoom ñoo nekk di am jafe-jafe ak wàllu euh, justice euh, sëñ Saliou xamuñu lan moo ko waral. Mhm. ba léegi peut-être dinañ xam donte am nañu ay écho mais munuñu ko affirmer parce que wóoruñu mais yeneen yeneen ñeneen ñoo xam ne tey jii ñu ngi ay prison comme ay Pape euh, Pape Ndiaye xam nañu lu lu lu ko fa yóbbu. affirmation bu mu def après on demande de preuves alors que journaliste bi il n'est pas obligé de de donner ses sources wala leneen am na du du du du révélation yëpp mooy am euh, preuve palpable donc am na journaliste si liggéeyam. Mhm. soo ko bëggee jàpp rek da nga koy jàpp. mais maintenant nag c'est dans un pays c'est dommage que ñu war a mën a toll foo xam ne délit délit de presse. nit ñi dépassé nañ ko bu yàgg dans les pays développés ma ñun ba léegi moom la ñuy kii maintenant dañ koy utiliser pour peut-être ñu xaw a noppiloo nit yi ñenn ñoo xam ne peut-être seen discours dafay gêner ñu xaw leen noppiloo mais c'est peine perdue parce que ñiy wax dañuy continuer di wax ñi nga xam ne aussi dañu opter pour noppi dañuy opter pour noppi di ko assumer ku nekk li ngay def yaa ngi koy def mais je pense que aussi war nañu mën a bàyyi nit yi. Mhm. ñu exprimer normalement ku nekk aussi. li ngay exprimer wu nga am aussi tam une responsabilité. Mhm. par rapport ak li ngay wax ak ni nga koy waxee mais acharnement bi si si si si journaliste yi euh, ça doit arrêter en fait ça doit vraiment arrêter. Grégoire. waaye Charles loolu daf ni tey réew mi fi mu toll moom mooy kuy wax. dangay xalaat ne ndax man est-ce que suba fi ma ko waxee waxtu boobu noonu damay fekkaat je pense que euh, dans un pays de droit waratuñu woon toll foofu noonu bu ñu demee bay wax tey liberté d'expression wala boog liberté de presse bi koy teg ci beneen kon pour man journaliste war na am xel boo xam ne dina toog bind aisément wala boog mu wax cher magistrat ressaisissons-nous loolu moo fës tey ci ëttu libération yéenekaay bi xëy na nag lamu mu ca dëxëñ ba léegi joxeeguñu détails yi mais pour man dans un pays boo xamante ne nii pays démocratie la ñuy wax presse def ci am benn pouvoir. Mhm. donc pouvoir boobu noonu presse am tey gis nga ko lépp lu ñu mën a wax tey dañ koy retrouver dans la presse. tey bu presse amuloon ñoom ñi tey toog di gouverner wala ñoom ñi toog tey fës bëgg a jël pouvoir mhm. fan la ñuy taxaw. Mhm. donc yaakaar presse bi yàb leen quelque part dafa war a arrêter aussi donc liberté de presse nañ ñu bàyyi ñu exercer suñuy fonction pas pour autant que chaque fois bu nit bindee rek dafa war a toog wala bu bindee xam ne neexu la dañ ko war a woo donc foofu la yëf yi féete ñu bàyyi rek ba xam tey fan la Serigne Sall di mujj ak lan la ñu koy toppee parce que aussi convocation kese la nañu toog ba déglu ba xam fan la yëf yi de la suite merci beaucoup euh, ci seen intervention donc avec la complicité de la régie léegi-léegi bu baax bi noppee rek ñu dikkat ci plateau bi daal di dalal suñu ay ganu